li ñu fi dajale woon mooy eh, def assemblée générale pour dajale jigéen ñi waxtaan ak ñoom eh, falaat beneen biro bu bees continuer waat nag suñu liggéey eh, ndax dem ci yeneen i perspective comme ni ngeen koy waxee def ay jéego ca kanam pour loo xam ne danañu mën a Euh, gën a jëmbale ci kanam réseau bi moom ni muy doxee ni ko ñëpp xamee mooy mu ngi góor góorlu ci dimbale jigéen jàppale ko euh, ngir mu mun a mënal boppam euh, ngir mu am aussi kaaraange ci boppam waaye aussi mu gën a mun a yar njobootam gën a mun a toppatoo néegam néegu sëyam yooyu yëpp bokk na ci li ñuy waxtaanee ak li nga xam ne ñu ngi koy dimbalante ci sunu biir tey jii nag euh, jéego yi nga xam ne moo nekk ci kanam kanamit mooy li may wax toujours rek dañuy bëgg ku ñu fekk ngay jaay caaf ñu dimbale la ba nga mun a yéeg ci avion yi mun a dem doxi doxi yeneen i soxla yu gën a kowe waaw bu ñuy fekkee ne dañuy yem ci euh, consommer local waaye ñu fexe aussi ba am suñu autosuffisance da mun koo génnee dem jaayi ko bitim réew loolu yëpp ñu ngi ciy xeex pour mun a koo jëmale ci kanam ci wàllu wér-gu-yaramu jigéen ñeeg lu nekk daal ñu ngi ci tey nag dinaa profité ci octobre rose comme niñ koy waxee at mu jot dañ ko daan def pour soutenir sunu moromi jigéen yi di leen ñaan ñoom it dañ lu gën a saytu seen bopp. seen i plaidoyer tamit bokkoon na ci waaw dañu bëgg benn banque pour jigéen ñi loolu moom yàgg nañ ko depuis la création du réseau ñu ngi koy jooytu waaye yaakaar nañ ne léegi tey yàlla mun na cee ubbi bunt. ndax yàlla boole nañoo euh, càmmiñ yoo xam ne nee na ñëw na góoral ñu te dina taxaw bunt bu mu laaj mu fëgg mu fëgg ko pour mën a dimbale jigéen ñi ñu da atteindre seeni objectif ah, jox won nañu yi tamit yeneen bunt yoo xam ne ñu ngi ciy yaakaar yàlla ne dinañ ci mun a liggéey ak moom gën a développé gën a jàppale jigéen ñi allah. gis nga bu ñuy def euh, bu ñuy def séminaire bu ñuy def séminaire wala forum wala dara euh, beñe dugub la ñuy defar akara lépp loo xam ne euh, consommé local la même keek yi dañ koy defar ak dugub wala ñu defar ko ak mboq mi nga xam ne fii lañ ko béyee waaye yemuñu foofu rek dina ñuy euh, bu añ jotee dangay gis dañuy togg ñeleng wala mbaxalu saalum wala bu na yooyu noonu buñ ko defaree dangay ngay gis euh, ceebu yàpp bi ñu togg wala yaasa bi ñu togg fa lay des lële moom jeex na bu yàgg ba ku nekk di plaindre kon li ñu am ci sunu réew dafa baax ci wér gu yaram tey tamit dafa dafa dafa neex te dañ ko bëgg mais pour quoi duñ ko togg moom a jaaxal. Ah, may wax nguur gi rek nañu gën a euh, encourager mbay mi parce que bala ngaa consommer local da ngay bay dañ dimbale baykat yi dañ leen gën a jàppale euh, euh, dimbale leen surtout nag mun jigéen yi laay waxati encore accès à la terre ñu mun a am suuf ñu mun a am suuf xale yi itam nañ leen xiir ci bay lum tuuti tuuti. bu fekkoon ne euh, kenn ku nekk muy yow man keneen ak keneen ku nekk fexe na am benn euh, euh, même bu matul hectare sax ruq boo xam ne mu ngi cay bay bu yàggee rek dana dana bare ba dana yaatu te itam ma ma ma yóbbante ko monsieur le ministre kooku waxaguma ko woon waaye damay wax ne nañu wax ne sunu autorité itam nañu bay joxe la bon exemple am ay tool di dem ci tool yi ñu di leen filmer jeunesse bi di ko gis di ci gën a encouragé wu. Euh, ndomb tànk bi daf ñoo dab daf boobu comme daf ñu dab nag te dañuy tàggoog moom balaa mu tàggoog ñun ñu def ci lu bëri ci lu luñ gëy ba am nga ngërëmal yàlla subhanahu wa taala loolu lañ jiital boo tax euh, tey sama teewaay fii déggu leen benn baat moo ci wàllum politique déggu leen ci baat mooy lan simmeeku sama mbubu ministre bi toolal ko yaa Seyda Moussoukro mbay ñu ànd ci ci présidente bi ñu dox ba nga xamante ne xam naa ne lu ñu ko defal it du moom moo koy jëriñu mais askan bi moo koy jëriñ ñu ne formation dama am ay benn équipe formateur yoo xam ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci sama kuréel gi kaar na tànge dañuy jël damay ñëw fay lépp lu wax produit fay matériel bi ñu ñëw formatrice bi ma ñëw ma fay ko mu ñëw ñoom ñoo koy dalal bu ñu ko dalalee fañ koy defee ñoom ñoo koy tànn bu ñu defee produit bi ñoom ñu jël produit bi jaay ko am ci seen xam-xam su ko defee ñu defal leen attestation parce que dama def fédération des femmes actives du Sénégal FEFAS fofu lay défé attestation yi donc loolu tamit ay bourses de suite yo ne def nañ ko donc mbir la yo xamante dang kay wax ni lu yomb la waaye képp ku tak ndomba tank war nga def loolu ngir lan jëriñ bi yekk ci askan bi baña a tëj sa téléphone baña parce que mbir mi kat mom yomb na doomi adama lañ am nañ luñ mën am na loo xamante dañ koy mën suba am na loo xam dañ koy uti am na luñ mënut lu ñett yooyu danga koy da nga koy distinguer lu wax mën naa mën naa mënuma kay sama morom mën na nañ ànd dem jëm gis jën gis jën Farba Sarr mu lijjantil ma ko parce que ku ma fëgg buntam dana ko ibbi ndax lan maa ngi ci cabinet président tànkam lañ noppam lañ beneen bi aussi mooy li ñu fi dégg suba suba bu ñu demee dina tegu ci table président parce que laaj naa ko ne ko madame la présidente lii nga jiite est-ce que président mos na leen recevoir mu ne ma déedéet te wax dëgg njiitu réew nga ko defal ku def daje bii dajale 14 régions yëpp dajale 46 départements yëpp loolu loolu loolu baatin la macha allah yàlla na ko yàlla gën a barkeel ba tax na danañ taxaw suñu digganteem ak euh, nguur gi ci ñuy soxla digganteem ak président ba mu yegg ci nopp président faxe ba président recevoir leen faxe aussi seen soxla yi ñuy dox ñu ànd ak ñoom suñ kéem kàttan ba nga xamante Euh, danañ xam ne tey bu ma fi ñëwee kat bi ma demee ah mbir yokk-yokk am na.